xooluma ci dara sama réew laay Ragalu ragaluma ci dara quelques personnes yi nekk derrière des claviers là pour insulter les gens ragaluma ko man réew mi laa moo ma ñor ëllëgu réew mi moo tax ma jël décision te te nag bu jafe woon ba jafe ñooñu bu ñu jël responsabilité fi ñu toll nii ñu bari l'Assemblée ngi xalaat assemblée bloquée kenn du qui a demandé président kenn du def mais bu le président de la république ordonnance il gouverne par ordonnance c'est c'est un république démocratique l'assemblée doit jouer le contre pouvoir mais malheureusement dafa am ñoo à travers leur réflexion dans la presse vraiment c'est ay

Quel est le côté du peuple Le peuple qui a donné 82 députés à Macky Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple depuis longtemps je m'en ai 25 ans je suis à côté du peuple Je que ça suffit xam nga depuis quelques temps est pris en otage par quelques personnes c'est inacceptable ces personnes-là qui ont trompé une partie de la jeunesse sénégalaise je pense qu'aujourd'hui il est temps d'arrêter réew parce que nous même bu leen yàlla joxoon réew mi yenn conditions yi vous des difficultés pour moi réew boo ko bëggee ko jiite koy boo nekkee président am jàmm loolu mooy li ma bëggoon a wax maa ngi gërëm ñëpp ñoo ci ànd ak yow